wax ni que bu ñu jaalee suñu mbokk sénégalais yi nga xam ni accident yi yóbbu nañ ci bakkan yu bari ci loolu lépp ñàkk ko doon coobare doomu aadama parce que amul kenn buy def liggéey boo xam ni di ci bëgg a faat nit wala nga faatu ci waaye nag mu tax ñu war a xoolaat suñu bopp chauffeur yi gën a góorgóorlu ngir bu ñuy def seen liggéey ñu boole ko ak dal ak yaru ak respecté code de la bi nga xam ni ñu ñëpp moo ñu tënk ñuy ñaan yàlla mu gëj fi tiis na ma lool nag tey dellusi fii war a waxaat ci mbiru Ousmane Sonko parce que jàppoon naa ni xam na léegi jàppoon naa ni ah nangu na dëgg jàppoon naa ni bëgg na dëgg feeñ waaye nit koo xam ni heure bu ñu nee ñoxor njaay nga jël say micro woo journaliste wala taal sa Facebook di live sa live di yàq xelu nit ñi di lëndëmal xelu nit ñi lépp nga teg ko ci sa coobare génn ci loxo yi nga xam ni moom la yoon teg dégg naa ko nag mu ni dañ koy saayal moom moom bu fekkee ci jëfi boppam rek la ku ñu war a naaxsaayal parce que danger la pour Sénégal moom bu fekkee ci ay waxam ak ay jëfam ak ni muy dundee danger la pour jeunesse sénégalaise dégg naa ko mu ni day xeex nee na day résister nee na Macky daf ko bëgg a faagaagal amul kenn ku pepp ngëm yàlla ak pepp dëgg nekk ci yow nga ànd ak sa sago ku mën a dégg lii muy wax nii nee na dañ koo kompaloo ci aji Rabi Sarr ñun xam nañ ni ba fay dem coobare moo ko fa ñëpp xam nañ ni ba fay dem da doon nëbbatu di fa dem ñun ñëpp xam nañ ni bànneexu àdduna moo ko fa yóbbu waaye am na ci ñun ñoo xam ni dañoo bëgg gëmm loolu ci seen i bët naan ay dañ koy faagaagal ku ko wax waxoo dëgg ku ànd ak moom ci loolu àndoog moom ci dëgg da ngaa ànd ak moom ci sa coobare bakkan wala ci sa coobare xol wala yëg-yëgi boo am ci moom waaye amul kenn ku mën a wax ni que Sweet Beauty dañ fay faju ñu nekk Sweet Beauty du ñu médecin du ñu kinésithérapeute du ñu sëti njaay xaw ma euh, mbay njaay gol bi parce que kooku day mocc kenn mosu fee gis ñuy rang Sweet Beauty naan dañ fay mocclu kenn mësul gis ñuy rang suite booti naan dañ fay faju képp kuy góor wala nga nekk ci réew mi xam nga lañ fay def moom moo fa yóbbu boppam mi ngi woo sénégalais yi pour ñu génn toj dëkk bi parce que dafa jàpp ni que bu demee procès suturaam wuññeeku moom moo wuññi suturaam jour ba solee yéreem nëbbatu comme ba muy dem dig lu muy def di ko nëbb lu muy def loo xam ne bëggul Sénégalais xam ko day def comme yëfi kaña musóoru kaalawu yoxos yoxosi dem fa def li muy def génn noonu la defoon ba muy dem dig noonu la defoon ba muy dem sud boti réew mi nag ñoo ko bokk ku yaakaar ni que mën ngaa def say njombe ba pare dem làqatu ci nii dañ may noot wala dañ may faagaagal parce que dañoo yaakaar ni que mën naa nekk président de la république nax na sa bopp sëriñ bu ko ci jàppale jàppale woo ci dëgg kilifa diine bu ko ci jàppale jàppale woo ci dëgg kilifa aada bu ko ci jàppale jàppale woo ci dëgg sénégalais bu ko ci topp toppoo ko ci dëgg réew mi nag république la diine àttewuñu aada li ñuy àtte règlement loi la yoon république ci lañ nekk ku foog ni say pexe bopp mën na la génne ci règlement bi yaa ngi nax sa bopp ku foog ni que topp ko mën nga indi ay jafe-jafe ci dëkk bi yaa ngi nax sa bopp ku foog ni que li fi amoon ci période Covid bi mën na amaat yaa ngi nax sa bopp kenn tuumaalu ko dara moom moo toog ni dem na fa kenn tuumaalu ko dara moom moo ni li muy yëg ci yaramam moo moo ko xam day dem faju ji képp ku ànd ak sa xel xam nga ni foofu duñ fa fajoo képp ku ànd ak sa xel xam nga ni foofu duñ fa mocc képp ku ànd ak sa xel xam nga lañ fay def ndaw si xam na mambay ak xam na président xam na keneen ak mën na xam ñun ñëpp mais moom moo fekk ndaw si ci barabu liggéeyukaayam te liñ fekk ci moom maniwu la kaay ñu xool ndax yaa ko moom wala moom moo ko nga ni doo ko xool ba fay dem tàgguwoo sénégalais yi ba fay dem tàgguwoo jeunes sénégalais yi ba nga fay dem tàgguwoo femmes sénégalaises yi da nga fay dem tàgguwoo kilifa diine yi yaa yëkkati sa bopp ci sa coobare bopp nga dem fa la fay am am fa ñu dem ci yoon nga ni dañ maa complot ku ko ci topp nag lu la ci fekk yaa koy def ndawu Sénégal laay waxal am naa sañ-sañ wax ñoom liggéey naa ak ñoom ñetti at ak genn mu am ci ndaw ñu dëggu ndaw ñu bëgg génn ci ay jafe-jafe ndaw ñu bëgg a jàppale seen njaboot ndaw ñu bëgg a jariñ seen réew ndaw ñu bëgg jàppale seeni i waajur ndaw yu bëgg am teraanga àddina ak àllaaxira mais lépp nag ñu teg ci njub ki leen di woo naan leen kaay leen génn ci mbedd mi bañ le ma ma dem procès moom ci boppam bu génnee bu ko policiers yi waxee dellul day dellu ki leen di woo naan leen kaay leen génn défendre ma pour ma bañ a dem procès bu ay doomam bëggee génn day dem tàggul ay doomam policier yi ki leen di woo naan leen kaa leen défendre ma kaa leen taal dëkk bi kaa leen jàmmaarloog policiers yi bu ko policiers yi waxee bul julli du julli ji day solaat grand bu boom ndànk dem toog këram ànd leen ak seen xel waa Pastef fii nag laay waxal ëpp leen ci réew mi firnde bi mooy dem nañ ay élection li ëpp ci sénégalais yi continuer di ànd ak ñun ku ci yaakaar ni que génne deux mille personnes trois mille personnes dix mille personnes na ku nekk xool électorat yi rek di nga xam ñoo leen ëpp taxawaay ñoo leen ëpp ngëm-ngëm ku ci yaakaar ni mën ngaa teg benn ñun ci at yu weesu teg nañ fuk tey ci kàttanu yàlla mën nañ teg ñaar fuk wax ji ngeen di dégg yépp am na ñun ci dul boole ñi nekk bitim réew ku ci dem liggéey ba sedd bi jàpp la nga ñëw ñibbi si sa kër toog wéet sa néeg def sa audio naan nañ leen taal dëkk bi kooku fële la nekk fii ku ko fi def ku ko fi def yoon dina dal sa kaw bu fekkee da ngay politique ñun tamit dañuy politique lu ñu ragalul wallaahi ñun ragaluñ ko ñoom lu ñu ragalul ñun ragaluñ ko man nag nekkuma di wax pour menacer damay wax liy am ci kàttanu yàlla pour que sénégalais yi doon seede buñ mënee indi fukk ñun mën nañ indi téeméer suñu jaar-jaar ci réew mi fii nii wane na ni que mën nañ indi téeméer ku ci topp ñu nekk ci biti ñu lay wax ba nga egg fa ah yaa tànn yàlla nag dogal na ni que ku dee ci dëgg nit ñi dañ koy xam ñun ñëpp ay fàttaliku du jóg réew mi fii nii ndaw boo jël mu ni la Mamadou Diop 23 juin ne touche pas à ma constitution parce que ci dëgg la nekkoon événement wu mars yi 14 mois rek ngay dégg moom ci boppam sàbbalu leen ku ci dee perte nga comme ci woo nag boo génnee di nga jaamaarloog yoon dinga nga jaamaarloog ñun li ngor maye. mooy mu dem wuyu ji ci ay tuuma bu amee firnde mu indi firnde man nag li ma booleeg moom defe naa ni ñemewut ta wax kompalool moom moo toog ci télé ay télé comme ni ma journaliste yi tiime mu ni am na rapport dam waxuma dëgg xamuma dara dañ may fal parce que pour ma koy saaga kenn mësuma dégg ma génne kàddu saaga jëmale ko ci moom lépp lu ma wax am naa fu ma ko teg am naa firnde moom mu ni am na rapport bu ma épinglé rapport u IGE génne téléphone am liir waaye waay waay waay waay Ousmane Sonko bu la bul fomm bul wax pare woo bul wax say avocat pare wuñu ñaari weer a ngi nii ci rapport boo xam ni ne nga sa téléphone nga ko yore demal imprimer buñ eggee ci juge bi la nga ni ko buqeet teg ci table juge bi boo nekkul buqeet nag man damay sàmm sama kàddu bu ñu ko wul buqeet man bum ci tegee semaine dinaa toog am na seen benn journaliste bu ma laaj léegi tablette bi nii ma toogee laay toog bu ma ñëwee ñu teg projecteur ci ginnaaw ma wax leen kan mooy Ousmane Sonko man du ma tuumaal kenn donc le deux na indi rapport bu wul rapport fenkat la fenkat la parce que fenal na Mamour jàlloo dégg naa mu naan ñu tribunal dem nañ tribunal ba ñu daan ko ci ñetti instance yëpp fenkat la parce que nee na xawma ma kat dafa dee woon fenkat la parce que waxoon na ni que xaw ma euh, euh, état bi moo rey xaw ma kan ki sant Seck ñu dem fekk ko fa lépp lu mës a wax du dëgg nit ki nag boo nekkee moom waxul dëgg da am fulla comme li ñenn ci waa Pastef yi nekk di def li tax muy woote lépp ñenn ci njabootam tey beddi nañ ko parce que xam nañ ni ka fenkat la nit ku dul wax dëgg nag mi mënoo jiite nit ku wax dëgg ñu yóbbu mënoo woo nit ci yàlla nekk ci mooy yàlla mënoo woo nit ci yàlla nekk ci jubati mënoo woo nit ci yàlla nekk ci fen ak sos bu njëkk ba nag danga woote woon am ñu la génn topp la bi yoon boo wootee ñun woote nañ ba pare te wallahi al azim pare nañ billahi laa ilaha illaahu pare nañ bu foogee ni que li amoon day amaat nax na bopp bu ko foogee rek nax na boppam yoon bi mu jël na songatul politique yi magistrat yi lay song nee na justice bi la ñuy pour fexe ko doon bañ a doon candidat man de bu fekkee man mënta wax complot loolu moom moo toog wax na jël rapport am dem yóbbu mais ñi muy attaqué moo normalul li ñi muy attaqué moo àndul ngor mënoo bokk ak say nawle même école bu ngeen génne ca njàng ma sax ñoo lu mënoon parce que yow moom sam njàng la ko yàq xaw ma Julian la xaw ma lan du man maa ko wax ñu bokkaloon classe bokk ak ñoom promotion ñoo ko wax donc yéen ñii Adji Raby yi xëy na bu ngeen gëstu yéen a moo ko gën a xam yow nga nekk ak say moroom say nawle ngeen bokk même école nga génn dem impôt ñoom ñu génn dem nekk magistra ñii génn dem nekk ay inspecteur trésor yow nga ni ñooñ ñëpp xamuñu dara ñooñ ñëpp baaxuñu ñoom ñëpp ay njublang lañ ñoom ñëpp ay kii lañ yow yaa baax yow yaa baax waaye yow yaay dem ci salon de massage yi yow yaa baax ca yow yaay fenal nit ñi yow yaa baax parce que yow yaay sosal nit ñi sëriñ bu ànd ak moom àndoo ci dëgg wala boog leneen ngay woote mais diine juñ bokk kuy bokkaale du ci nekk diine biñ bokk kuy moy yàlla du ci nekk diine buñ bokk kuy wax lu dul dëgg du ci nekk diine buñ bokk kuy sos du ci nekk donc na woo nit ñi ci leneen mu neex ko nag ak mu naqari ko man sama procès ak moom bu ko neexee mu bañ ñëw yoon may na ko ko bu ñëwulee daan bi gën a gaaw ba neuf milliards laa koy laaj te wallahi azim bu bu ma yoon joxe vingt neuf milliards ci lay xam ni lépp dëgg la dinaa dem këram lépp lu mu am ma saisir ko ba mu mat sëkk bu laajee saisir kudd wala cinam yi muy dëppeeg lépp dinañ ko saisir bu dee moom day fo ñun fowuñu Adji Raby dina ko wuyu ji mënul yàmbale yëf yi di di yónni ay nit yu nekk parce que ñiy wax baax na population bi xam ñi ci ëpp ñuy wax ay compte fictif lañ yor ñi ci ëpp ñuy woote fitna ñemewuñ joxe seen identité ñi ci woote fitna yëpp ñi ci ëpp ci biti lañ nekk ku nekk fii ci réew mi am na loo xam ne boo ko defee moo tax gannaaw suba bu état bi commencé def liggéeyam parce que nag ku bëgg a taal réew mi ñu taal la ñu jàpp la bu fi kenn wax bu fi kenn ni dañuy opprimer bu fi kenn ni dañuy réprimer bu kenn ni politique bi mi ngi moom moo bëgg a taal réew mi ci jubati moom moo bëgg taal réew mi ci ay fen moom moo bëgg taal réew mi ci ay nar ku toog nag mm-hmm. am nga sañ-sañu toog waaye ñun duñu toog parce que ñun dañoo ànd jiital nit xalaat saytu am projet dem wax ak sénégalais yi ci kàttanu yàlla ñu jox ñu ko ñu nekk ci loolu moom xalaatul joxewul sos ak wax lu dul dëgg kenn mës dégg mu ne la lii laay def ci ndox mi kenn mës ta dégg mu ne la lii laay def ci courant bi kenn mës ta dégg mu la lii laay def ci faj mi kenn mës ta dégg mu ne la lii laay def ci njàng mi woy woy woy ñi xamuñu dara rek di woote nit ñi ci njub ca jubul di woote nit ñi ci maandu ca maanduwul bu ci nekk am na firnde noo wax ni que nit ñi kaay leen ñu jub nga dem jiiñ Mamour Diallo quatre-vingt-quatorze milliards fekk yow sa bopp yaa ngi waxaale ci suuf pour am ci douze milliards xëy na lam la ko xañ moo tax nga jiiñ ko ko munoo nekk di woote ak maandu toog ci kanamu sénégalais yépp ni man am na rapport bu épinglé Mame Mbaye Niang huissier di la wër pour yóbbu la ci juge bi ngay nëbbatu booy dem wuyu ji rus nga ko wax say mbokk parce que xam nga ni li ko wax du dëgg ngay nëbbatu comme kaña di raser mur boo ñëwee sax amu fitu ñu ngi ko waxal waay waay waay bi yoon doo boo tegee benn ñu teg fukk fukk yooyu man maa ciy jiitu dégg naa am na ñuy taw ci télé bi naan ko noo du wuyu ji ah boo nee nit ki kay doo wuyu ji ah da nga jiitu nga génn nga xool boo xoolee nga xool ndax yoon dina la bàyyi wala ñi yàlla dénk nguur gi dinañ toog seetaan la ku ci yaakaar ni dinañ seetaan seetaan dëgg dina am dina dem procès ci aji Sarr man bu ñëwulee daan bi de gën a gaaw mais nag bu ñëwulee tamit na réew mi yëpp xam ne ay fenkat la parce que moom moo toog ni am na rapport bu kenn wax ni que dañ ko complot bu kenn wax ni que day complot politique magum jëmm def quinze ans impôt et domaine xam lan mooy rapport nekk ministère des finances toog ni rapport IGE moo ko jàpp foo def fukki weer fu foo def fukki at ak juróom waroo jaawale IGE IGF laajatuma ko bu IGF laajatuma ko bu IGE bépp rapport bu mu am na ko ënti an ngi leen dégg ñuy wax anaan ay lapsus la ak ay lapsus ci lañ tëj ma jambal jaañ xam ngeen ko ñu daan ko six mois man laajuma ko IGE nee na am na IGF e ba ko police laajee daf ni maa ngi dem uti ko na ko indi bu amul bu IGE mu indi bu cour des comptes bu amul bu cour des comptes mu indi bu bu FBI bu amul bu FBI mu indi bu CIA mais munoo wax ni inspecteur nga def nga finance fukki at ak juróom ñu rajee la ba pare ngay ngay wax ci sa làmmiñ ni que ministre ministre en exercice IGF mën na ko épingler parce que ku xam ni administration tëggoo war ngaa xam ni que IGF mënuma sax auditionner ba di ma compromettre ku xam nu administration di doxe xam ni que service su benn ministère mënta auditionner sax beneen ministre ba rapport di am ba pare moom nee na ñun xamuñu dara dégguñu tubaab nit koo xam ni loo wax tey bu subaa nga indi beneen bi du ma wax ak diw du ma wax ak Karim Wade après yaay daw ci ginnaaw Karim Wade duma wax ak RFI yow yaay dem uti leen parce que da yaakaar ni njombe nga nit ku mel noonu nag danger nga ci réew mi mooy musiba nga ci réew mi et ku nekk musiba ci réew réew ma dafa war a mànkoo beddi la def la teg la fële. la ñu d'accord ni ko loolu mooy jiite réew ma ñu teg la ko salaamaaleykum maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp.